bari woon na léegi moom macha allah ak pressman bu ñëw nii léegi ndax ñun ku fi ñëw position bu la neex nga wasin boo ne dangay taxaw ñu defaral la couché la bu ne position gynécologiste ñu accouché bu dee si suuf si tatami bi aussi dinañ la lalal ba mu baax ñu defaral la boo mu baax ba nga wasin fii moom wax dëgg yàlla accouchement yi moom jigéen ñi kontaan nañ waaw xëy naa ñoom boo leen interrogé aussi dinañ si nañ la si wax mais progressé na quand même ndax euh, CPON bi mu ngi marché quand même accouchement itam mu ngi marché daanaka mu ngi am mais bëriwut surtout fii si commune bi moom pour nga gis léegi accouchement fii moom du ma la wax ba kii na ne may bëriwut planification familiale moom daanaka moom euh, baax na torop fii nii planification boo xoolee population euh, Kolda dañ doon loo xamante ne xale ay xale lañu ay ay deux ay à 16 ans déjà presque 15 ans fekkee am nañ jëkkër donc imaginez-vous jusqu'à 30 ans bu fekkente ne la femme jusqu'à 40 ans mu ngi mën a jur ba tey su deful planification moom xaw ma euh, ñaata doom lay am ba pare loolu dina koy ndey complication. ce qui fait que ñun suñu ak suñu relais yépp ñu ngi siy jàpp di def ay ay waxtaan lu jëm ci loolu pour ñi ñi mën a euh, ñëw di def planification pour espacer naissance yi. parce que planification boo ko xoolee non seulement boo planifier euh, jigéen bi pour deux ans dina am jot pour mu récupérer yaram bi récupérer dina am jot doomam yi dina am jot xëy naa di def ay commerce tuuti bu mun a am tuuti mun a dimbalee doomam yi yooyu yëpp baax na trop su ma sañoon ñoom ñëpp képp ku jur ba wasin ba wasinee rek nga ñëw def sa planning nga xaar deux ans ba nga amaat beneen doom pour au moins ñu jéem a espacer bi su ma soñoon mais day am ñeneen ñoo xamante ne boo leen ko waxee dañuy wax seen jëkkër yi nanguwuñu donc bu suñu problème yëpp mooy seen jëkkër yi. am na ñoo xamante ne seen jabar yi dañuy nëbbatu teg fi seen carnet am na ñoo xamante sama jëkkër bëggul di sonal keneen day ñoo ne la dindil dindil euh, planification bi léegi léegi. mbaam nga génn sa kër donc c'est des difficultés yoo xamante ne dañ fi am wala mu ñëw ne la est-ce que sama jabar mu ngi def planification loolu laa ñëw uti loolu yëpp dañu am difficulté loolu donc problème bi yëpp jigéen ñi dañu bëgg a noppalu jigéen ñi sonn nañu mais problème bi yëpp seen jëkkër ñoo leen jàppalewu fii de daanaka euh, même primaire primaire à partir de euh, CM2 âge seen 2 yëpp dañuy dee di gis ay grossesse non désirée donc de ce fait ces ces années passées ak sensibilisation bi gis nañu ni jigéen ñi seen boppam ñoo indi sax seen doom yi ne leen defaral ma plan léeg-léeg nga ne ko eh, kii dafa tuuti mu ne la noo defaral ma ko donc xam nañu. wala si boppam xale bi mooy ñëwal ne ko damaa bëgg a def planning nga ne ko lu tax mu ne damaa bëgg a def planning kon ku ñëw ba sa bureau ne laa damaa bëgg a def planning xamal ne xam na dara donc da koy def collège moom n'en parlons pas ñoom daanaka ñoom ñëpp ndax bëgg nañu réussir bëgg nañ jàng donc euh, loolu yëpp tamit avant planning bi avantage la si loolu pour ñu bañ a ëmb ñu mën a suivre seen jàng. bu ñu ñëwee à 12 ans duma wax sax est-ce que yow dama woo sa yaay parce que yow majeur la noonu non loolu du ko def parce que nit bu jaxasee ba naan ñëw damay ñëw si post bi rek naan dafa ma planification xamal ne commencé naa activement di def euh, rapport sexuel Euh, mu tànn ñu won ko yépp façon planification yi mu bëgg ñu defaral ko loo xamante ni baax na si yaramam aussi ñu defaral ko donc sans problème ñu ngi koy def waaw feebar nag sëy moom bari na fii xam nga fii daanaka fii nii moom euh, luuma la boo xamante ne lieu de rencontre Guinée Bissau ñu ngi ñëw fii nii ñëpp di ñëw def commerce bi chaque jeudi dañuy ñëw fii pour commerce ku ne fu mu jógee donc euh, rencontre yi mel noonu aussi il faut que yooyu mu am mais néanmoins préservatif yaa ngi fii ñoo xamante ne jour luma bi mu mel ni tey dañ koy distribuer yu bëri ñu ko jox nit ñi ñu koy defal ñëpp ak ñu ko soxla mais ñu ngi continuer aussi toujours di def sensibilisation bi lu jëm si loolu waaw ñu jàppale ñu d'abord si ambulance bu baax ndax suñu ambulance bi moom genre ambulance la ñu amoon ambulance médicalisée boo xamante ne nit ki mu fa duggee ñu defal ko perfusion ba ñu kii defal ko traitement bi en cours de route parce que diggante bi fi ak hôpital régional ça fait 20 euh, kii 30 euh, km de diggante bi femme bi mën na dé donc buñu amone ambulance médicalisée boobu dinañu doon gëna a baax buñu amone échographie dinañu loolu moom à saluer parce que euh, jigéen bi lu gën a bëri yëpp da ngay ëmb doo xam sa li nekk sa biir am na malformation doo xam. présentation bi doo xam am na yoo xamante ne ñun mënuñu ko gis à lay ni donc échographie rek moo ko mën a xam donc loolu bu ñu ko amee vraiment dina baax troisième bi mooy nous ñetti lañ sage femme d'état bi infirmière d'état ak euh, sama adjoint bi euh, euh, assistant infirmière infirmier bi les ñun ñi population plus la Guinée-Bissau plus les districts frontaliers wax na ñi affecté ay région de Kolda sage-femme infirmier yi ñun ñëpp ñu jàppoo liggéey bi duma